ngeen jot suñu vidéo nag foo leen toll si biir réew mi wala si biir réew da ne dugal nañ ko ci wolof wax ni am nañu euh, téeméer ak euh, juróom-benn fukk ak ñaar cas yoo xam ne positif nañ Sénégal ci loolu ñaar fukk ak juróom-ñetti wér nañu donc fi mu nekk nii suñu l'hôpital yi am nañu téeméer ak. Euh, Euh, ñett euh, fanweer ak ñeent euh, malade yu fa nekk ñooñu am nañ ci ñaar yoo xam ne nag seen seen situation xaw nañu jaaxal tuuti bu xaw a métti tuuti dañu nekk sauvetage donc ñaar ñooñu am na koo xam ne sax dañ koy may pour mu noyyi te loolu waxoon nañ ko plus ñuy am ñuy gën a am ay cas yu bari plus ñuy am possibilité am ñoo xam nañ garaaw te ñooñu souvent ay mag la ñu nekk ba pare am yeneen feebar yoo xam ne moo nekk ci seen yaram. te bu ñu xoolee aussi ci wàll bi ñi euh, ñi jóge bitim réew ñoo ak ñi nga xam ne lañuy ñuy wàll ñoo gën a bari ñooñu presque bu ñu jëlee euh, téeméer euh, ñeent fukki ak juróom yëpp ñoom ñoo koy indi. donc loo xam ne war nañ ci bàyyi xel te xalaat nañu ak mesures yi nga xam ne jël nañ ko ci tëj frontière bi dina mën a dimbali fii ak à partir du 4 avril ñu gis naka la feebar bi di jëm. parce que fi mu nekk nii dinañu am toujours ñoo xam ne dinañu jógee bitim réew ñu nekk ci dëkk bi di def feebar bi donc bu ñu demee ba nga xam ne booru 4 avril normalement waratuñu am ñoo xam ne jóge nañ bitim réew dugg si dëkk bi pour indi feebar bi maintenant bi des nag mooy ñi nga xam ne ñi ngi ci dëkk bi eh, am feebar bi ñu def la telle sorte que ñu am keneen ku ñu wàll ci gox yi nga xam ne ñoo am feebar bi juróom benn la donc dakaar la Diourbel Thiès Saint-Louis Ziguinchor ak Fatick ñooñu dëkk yooyu bu nekk am na benn malade boo xam ne am nañ ko bésu bërëbu fajukaay yi juróom-ñaar la juróom-ñaar la am na ñeent yu nekk dakaar donc hôpital Fann bi nga xam ne moo njëkk a tijji hôpital euh, Dalal Jàmm ak hôpital d'enfant bu ñaajo bi am nañu benn structure bu réanimation sauvetage bi bi nga xam ne mi ngi nekk hôpital fan si chirurgie cardiaque boobu léegi ci la bokk ci région yi ñeent ñett ñu am mooy Touba. Euh, Ziguinchor léegi depuis demb bu Saint-Louis ibbeeku na parce que Ndar am nañu malade boo xam ne def nañ ko fa démb am nañ aussi yeneen euh, place lal yoo xam ne ci ay hôpital yoo xam ne pare nañu muy hôpital principal muy hôpital Chaume benn hôpital euh, privé la boo xam ne mi ngi ci hôpital Fann ñoom dañu joxe seen lal pour ministère la santé mën fa teg malade am nañu aussi benn clinique boo xam ne suñu benn naataango docteur moo ko joxe pour ñu mën fa jël aussi malade donc am nañu ay lal yoo xam ne ñu ngi koy préparé parce que dañuy xalaat ni aussi dinañu amaat ay malade yoo xam ne dina ñëw ba nga xam ne bu ñëwee dina am fu ñu leen di teg ci wàllu euh, laboratoire yi boobaak léegi am na junni ak ñeen 1441 la je bloqué 1441 yoo xam ne def nañ ko test laboratoire ñi nga xam ne bu ko defee si lañu génnee euh, téeméeri ak juróom-benn fukk ak ñaar yi nga xam ne malade nañu li ñu mën a wax rek mooy euh, ci wàllu feebar bi bu ñu vraiment bu ñu am xel ñaar feebar bi fi mu nekk nii mi ngi commencé jug mais ba léegi du ñu jaaxal ñu jaaxal ñu parce que xam nañu feebar bi dafa war a jug fi mu nekk nii. comme li ma wax am na ñoo xam ne ñu ngi ci jóge nañ bitim réew dugg nañ ci réew mi ñu ngi am feebar bi ñi ngi am ñeneen ñuy wàll ñooñu aussi am na ñeneen ñuy wàll. pour ñu xam feebar bi naka lay jëm il faut ñu bàyyi ba dinañ amaat semaine parce que semaine bi dina fekk ñëpp ñi nga xam ne tukki woon nañ jugoon bitim réew dugg ci dëkk bi dina fekk ñoom ñu génn si seen juróom fukki fan ak ñeent feebar bi donc boobaa dinañu mën a xam léegi ñun suñu feebar bi naka lay continuer parce que boobaa day nekk juste Sénégal ñi nekk Sénégal am feebar bi te kon boobu xeex bi mooy ñu bañ a Euh, wàllante bi entre ñun ñi dëkk si dëkk bi mu mu mu law donc loolu dafa nekk loo xam ne nit yi war nañu respecter mesures yi ñuy joxe yëpp ci wàllu cat bi ci wàllu bañ a duggante bi ba nga xam ne dinañu mën a xeex xafar ba du ba du yokk maa leen di gërëm ngeen jot suñu vidéo si biir réew mi wala si bitim réew da ngeen mën a jot moo leen xam ne